wax ci euh, ñàkkum ndox ca euh, xayra koñ la bu nekkee ca Touba askan wi ne ay weer a ngi nii yoo xam si daanaka dañuy euh, rootaani loole nag tax ñu daal di jàpp ne sabotage am na ca séddaleem ndox ma wala sax kon mu am leneen loo xam si war nañ leen ko leeral tax nag ñu koy jooytu Pape mbay Diaw Xayra nekk ci commune bu Touba góor ñeek jigéen ñi ak ndaw yi ñoom ñëpp ñoo daje woon ci place publique bi ngir di naqarlu ñàkkum ndox mi nga xamante ni am na ci seen quartier bopp Serigne Fall moo yor seen kàddu ama magal ba léegi doon toqut fii wala wan ñetti at am ñu ko am waaye am nañu am na juróom-ñeenti weer am ñoo fukki ko lii ne nekk ci quartier boobu dañu xamal jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi koy am ak ñàkkum ndox mi satuwaar ba tey métti na looti ñun métti na di jël di nga xam ne tamit dañoo sëy si war a xëy di togg di yekk dem marché ci ndox lanu ñàkk daaw ba ren naanuñu tëdduñu ci lal nelawun tëluñoo jàpp tëluñoo julli ji li sëy moom nee na li am Touba sabotage la ndaxte forage yi nga xamante nii dañuy jaayam ndox duñu paan mukk Touba ji sabotage bi fi nekk li ñu bëgg jam baaraam Touba ñu xam mooy lan ndax nag bu ñu waxee maa rahmati bi nga xamee ne dénk na leen ndox mi seen ndox mu neex mi ñuy jaay kenn mosul dégg ñu ne seen forage boobu paan ofoor mi nga xam ne leen a fii ci ak maa rahmati bi nga xam ne leen andi fii Touba vraiment ñu andi ñu am compétence ndox mi mais mënuñu nekk ci Touba jamono ji ñàkkum moo leen